nice na torop hey yow dina li vidéo lay bañ yéen ngeen ma ko gis Fatou Camara ragal xool leen dafa sàcc suma yére ah. sàcc suma daala ah sàcc suma mees yep suma alal ak euh, sa jaaru loxo yi yëpp naka ngeen def man duma semestre la ma fi maa ngi fi rek dégg naa jamono ji yaa amee Sénégal dégg da nga daw Gambia dem Senegal di arrangé Di di, naxuñ ma man xaw ma yëguma ko. wax ñu foo jógee. man kay Sénégal laa jógee. fa xew rek comme ñëpp rek. waaw comme ñëpp lan ma fa xew yow lan nga war a dem Fatou yow journaliste nga looy uti Sénégal. ay yow tamit na xanaa aw ma freedom of movement. Ah. ah yow du danga jóg sa kër ñëw taxaw fii loo fee def. waaw jël si woon. Ah, man tamit na yow laa xam ne danga fii nekk ma dem ba Sénégal pour ñëw tase yow. fan yii euh, ngi gis lu rëy xew Sénégal euh, nekk nga koo xam ne euh, ku la xam-xam la torop si wàllu Macky Sall la parce que kooku si nu ko gars yi di ko de ñu ne daf la jox that movement ak yooyu loolu am na na man daal du ma wax no comment as of now du ma wax dara si yëfi Sénégal bi I reserve my comment. waaw. gisee political environment I reserve my comment. waa léegi dafa am dafa am euh, lu tax parce que nga su dara xewee you have to study the situation euh, then ba pare who am I man pour maa war a ñëw toog di wax ci loolu dama waxoon ne bi liggéey bi ma nekkee di dégg dama ne ma xaar ba ma pare su ma paree dinaa wax <coughs> waaw. Fatou jamono jii ñu xool Fatou Camara xoolal leen ma ko jiin ba lay lay la mi ne si yam si pooj si <laughs> ma jaaxal Fatou looy ut Sénégal despite politique xanaa sa boyfriend bi foofu la ne. déedéet nekkul fa nekkul fa su fa nekkoon li ma wax la ko ngir xam nga xam nga ma wax dama koo wax ganaar yi kenn nenu ma waaye dama dama dama fa am uh, yéene yu ma fa dee dem def so you know am a business Euh, damay liggéey te Gambie ak senegal yëpp la léegi léegi euh, liggéey tax ma war fa dem ma dem fa loolu rek la. góori Gambie kenn kenn kenn xoolal. góori Gambie man fi mu nekk nii suñ priorité du góor. ñun jur Fatou Fatou Fatou Fatou dara daaxut nag nga jaagar jaagari ah yëkka sa yëkka déedéet kaay de Fatou ñoo ñun ñaar eeg a eeg te man fu mu nekk maa ngi sëy déedéet toolu foofu xam nga ñun sey nañ bi jur nañ suñ doom yëpp waa ku dem nag ba am sa ñetti doom mu fekk sa sëy nga sa ñaari yoon fu mu ne loo namaat man ma dara man fu mu ne li ma nama mooy liggéey ut xaalis nekk si jàmm lii rek laay lijjanti fu mu ne waaye yëfi góor moom bàyyi naa la ko léegi xanaa xanaa dañuy toog nag sa xel ba ñëw nag si yooyu waaw waaye nga yëpp si sa xel si sa xel bi la si sa bopp bi la loo bëgg a foo bëgg a mu dem foofu lay dem am na foo su fa bëggee àgg nga ne ko hey am bil pour fay dina ñëwaat ñu jéem a lijjanti di déedéet kay balaa ngaa dem ma ne ko kay déedéet foofu seebin dara wax leen ne mën nga taseel Binta Diba mun la doon joo Binta ya ko doon joo tontul Binta. lu ma def. xam nga ne Binta yaa ngi ma yónnee vidéo bi waaye fekk maa ngi Sénégal affaire ñu ngi bari dama ne su ma ñëwee Gambie fii ma ñëw toog seetaan jotanguma seetaan sax lu ma waxal kooku bari mu ngi kala. mi ne yow ku baax nga amuloo problème maa ko def Fatou dafa bari defante. dégg nga tamit nag foog ñu def noonu nga ñëpp tam mënuñoo si dikka koo xam ne la wax rek nga nangu ñëpp mënuñoo mel noonu foog mu am ñu ne mel ni suma maas gi nag ñuy tàngal nit ñi dina noonu la. waaye fan yii de tàngal nga dikka bi de sa vidéo bi moo demoon viral. Ah, bi nga def bu ah sport football bi waaw gisuloo fàtte naa ko sax man mom bu ñëwee da dama koy wax rek jéxal ci rek toppatoo suma soxla waaw. man bëgg na mèche bi. ah mèche bi yo ah. yo seet nga. Ah. yo seet nga na tam tubéy bi yo lo dé tubéy bi dula jot. <laughs> lu tax du jot. tubéy bi dula jot. ya ma yar dé dé wang mo tax. waaw man suma ma nga man duma la waxati dara. waaw ah man ñëmé nga ma wax dara bu waxé dara ñu ñettel dé de juddu ci kuma am dina ñëmé am leneen ku la ko wa ci yab ñu nga xol yab ñu nga xol la am fi la ko kebas yab ñu nga xol ci sa ci ñu dem banjul wala dem university of the gambia wut ben xalé xalé yoy dañ ma ñëmé xol leen ma ma am gannaaw am kanam am yépp to lool mom déggal la mom lool déggal la madame lool déggal la gëm naa la te te sa fans fu mu nekk nii moom fooguma ne moom ñeme na sa dugg ci beneen dafa mel dafa sanku de waaw moom sax tic ah jeex ah, iya, na nga nuyoo sa fans sa am di xam ne yow rek la ñoo bëgg a gis yow la ñoo bëgg a déggoo euh, loo wax rek ñu ne la Fatou Camara. man léegi wàññi naa suma parce que media bi comme ni nga ko gisee léegi dama nekk si more of business side bi dan toog di binda lan moo xew fële lu xew fii diw def na lii bàyyi naa yooyu yëpp léegi-léegi nit ñi ne ma géej nañ laa gis man fu mu nekk nii media boo demee ba toolu feena ñu bari nag all over the world da ngay mujjee nekk ci PR public relations man fu mu ne loolu laay liggéey euh, di wax fans yëpp ne Eh, looloo tax léegi duñ ma gis may rang-rang di dugal na taal di yi yooyu noonu bàyyi naa ko yëpp fu ma toll nii PR laa nekk di liggéey di ut xaalis foofu rek laa tool <laughs> di wut xaalis di ñaanal ñëpp nañu am xaalis ngir moo gën a important lu nekk time la yii nii def naa ko dama daan ko fa sa container yi di donné books yi su ñëwaan uh-huh. time yi eh, si 90 yi su ñëwee ñu ne ñu container ñëw na pour donné books su benn school in Jambur ñu daw taxaw si laan bi téye mic bi nii di interview lii yëpp def nañ ko fu mu nekk nii kay yéen lañ ko bàyyee. gisuloo foo taal nga gis Fatou Samba loolu la yan na yokku eh, jamono dina ñëw na ma ne la ma ne di yéen laa ko bàyyee comme ni ko Fatou Camara bàyyee gars yi <laughs> waaye Fatou euh, fu mu nekk nii euh, caméra yéen ñëpp ak maa gis live and direct taxaw ak Fatou Camara dama am programme bu rëy nag xam nga Gambian Talents Pa Ousmane moom mu ngi fi rek ku jàppale ndaw mi Euh, last year la almost 600 young people ñu ngi leen jàppale ba tey ñoom it ñu ngi si different different place so this time around ñu ngi war a def suñ graduation mu nekk euh, on the 9th of March incha allahu rabbi si neexee yàlla and dinañ la fa bëgg a gis nga ñëw euh, joxe speech si wàllum jigéen yi si biir media and then waaw 9 March dinañ see parce que nga élection bi moo gënoon a tax bu Sénégal bi ñu waroon a toog fii ba élection yi passé waaye léegi ne days information ne ñu ngi ko move so ay think I don't know that dinaa toogati ba loolu ba match waaye nga yoo rek tax nga ma dagg billet ñëw. Ah, waaw waaw. mais Fatou Camara dama bëgg nga bokk si ñuy support programme parce que media ngay def suma graduation dama bëgg nga def si sa xaalis ñëw naa si ko si kiram live and direct ak suma bungu maan ak suma maa ko wax ganaari kenn moomut ma 25000 dalasi yi moom la ma jigéen ji jox ak xeeb ak doole ba pare xam nga lan mu teg si nag ay bagages yi ba bu leen ko wane si caméra bi bëgguma caméra. waaye ma woo mooy Pa Ousmane man mooy. génneel ma Pa Ousmane Pa Ousmane woo ak la bokk ñun mi ngi gàmbente man maa amee gàmbente bu jotee ñu wax amu problème. dama bëgg nga dëkkale ko fii right now. laay wax fii. ñaata nga ñuy may. déedéet loolu du ma ko wax. 1.8 million.